caraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa Ama Baldé ak Modou Lo seen ba finalisé nañ ko ba jàpp nañ ko le 26 juillet journal ba xëy ne aventure cassé en poste sunu lamb loo wax mu Ama Baldé jot na encaissé na ba dugal ci poosam zil Baldé mag ja moo ko jël si woon mu dugal ci sase dugal ci poosam fermeture ba mu dëgër ni ay ca Pikine maa ngi ñëw Ama Baldé waa Pikine zil Baldé liir nañ contrat ba ba approuvé ko fi mu toll jot nañ seen avance le combat est maintenant officiel Jules Balde a réussi son foofa leer na nañ loolee moo waral Ibou Faye ma nekk ci kaw Balde mu ne ma Pikine gépp jóg góor ak jigéen mag ndaw nu ñëpp ñëw ñu nangu ci couronne bi gannaaw Ama Balde jot na kase Modou Lo juboon ak Luc Nicolaï kon combat ba le 26 la ci arène nationale bu ñu jàllee ca Gambie ba léegi coowal combat xooyantaan bàyyi ma njoon ba ba léegi reesagul kuy am lu la naqari ci bile ne waa combat ñaari mbir yi moo tax mu yàqu ñu ne promoteur ya nekk ca Gambie dañoo siis dañoo soxor yéene wu ñu woon jamaykee combat ba réussir beneen ba ca ñu ne bëgguñu mbëru Sénégal ñëw di détrôner seen roi des arènes ñoom dañoo xalaatoon ne Baye bu daanoon xoyantaan yóbbu roi des arènes bi Sénégal foofee ca Gambie roi dootu fa loolee moo waral ñu teg seeni plan de sabotage ñu ne plan ya ñu tegoon bokk na ca ñàkk a teg ay barrière ca nekk ca Gambie tey amateur xaaj ba loolu la ñu bu dee presse gambienne ba ñoom mer ba futu la def ko ñu mere mooy arbitre ba mbooleem presse ba làmb te nekk ca Gambie bëggatuñoo gis wee bëggatuñoo dégg wee mbooleem Johnson boo dem ci Gàmbi loolu la ñuy waxtaane ñii naan Boka da waroon a dagg say we ñii naan Boka amul we bu mu war a dagg guddi yi weer ma ñuy wax ongle ci français naan ko naayal ci anglais moo gën a siiw Adama Barrow bu ñu jàllee ca diggante Tafa Gueye 2 ak Abou Ndiassé Saourou Fall moom indi na ci lu leer nañ kan moo yóbbu ndam li le 17 décembre ci Iba Mar Diop diggante Tafa Gueye 2 ak Abou Ndiassé Saourou Fall indi na ciy leeral moom manager écurie Ndakaaru la mu fa ñuy jeexale mooy ca lit cent franc ba ca gala association bokk yaakaar bañ doon amal ca pas yi si Ahmadou Bamba ñu gën koo xam ci Toubacouta moo ko jël moom Toubacouta na mu defoon ca Sokone daan caaka fay noonee la defaat ca daan seen kumba Toubacouta soqeeku nay lampam tàkk nañ tey làmb ji neex jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci ëttu yéenekaay bi ñu leen jox di daje ba ëllëg